jox en wolof ñu jàll tout de suite sans plus tarder ci revue des titres yi commencé ko l'observateur qui titre les vérités de Cheikh Amar voilà euh, kon bi jour del si ci waxtaan gu yaa ak euh, Cheikh Amar euh, kon patron TSE ci la nga xam ni jàpp na ni daal doxalin la goo xam ni rawatina président Macky Sall war na ko teg donte sax am na jéego yu mu def ci fànn googe waaye defaraat mbili gën ko ñogal bokk na ci lu jëm ci mbay gi nga xam ne ni moom Cheikh Amar ñor na ko lool te sax mu dugal ci loxoom waaye doon loo xam ni jàpp na nit bu ñu ko defee lépp lu jëm ci ay programme ngir suqali ko am ci biir réew mi loolee mën a antu bijou L'AS parle de grogne dans l'air autour de la fermeture de Yavuz Selim et titre l'État préconise une administration provisoire. voilà donc administration provisoire boobu dafa juróon coow ndax bu fekkee dañoo jàppoon ni moom état bi kër bu ko jox fondation Marif te jamono ji mu ne dàqul sax moom Serigne Mbaye Thiam ne état bu Sénégal dinañ ko jox yorunu ndëgg di googee ci lu soxal groupe Yavuz Selim kon day doon loo xam daal dina dalal euh, parent d'élèves yi am yaakaar ni kon waxtaan ni dina wéy ci euh, fànn boobu. Même chose dans Vox Populi qui titre pour sortir à Yavuz Selim de l'impasse l'État rétropédale. voilà état kon xoolaat euh, li mu njëkkoon wax bëgg kon euh, lépp rek euh, am ci jàmm ba tax moom jëwriñ bi kon am waxtaan yu mu sumb démb gannaaw kon parents d'élèves yi tey di jàkkaarloog jàngalkat yi waaye te administration bi ngir wel waxtaan googe xool naka la ñuy def ngir fi ak ayu bés daal mu doon loo xam ni ni dina boole acteurs yi ak élèves yi sax ñu mën a kon wéyal seen jàng ci l'école yooyu. Même chose dans l'enquête où on peut lire fermeture de l'école Yavuz Selim avec la raison du plus la raison du plus fort mel ni kon xeex bi nga xam ne ni euh, ñi antoon ak tëj bi dañ ko doon amal mel ni kon état bi sax dinañ cee fekk si ndax xam nga ni aussi pression amoon na ñu jàpp ni kon décision bi état bi jëloon euh, tegawul ci yoon donte sax yoon ñu ngi koy xaar mu àddu ci euh, juróom-ñeent fan ci weeru octobre gii di ñëw. Tout autre chose dans Réumi qui parle des révélations sur une audience nocturne et titre Macky prêt à accepter le retour de Karim. voilà kon Wade xam nga kon ba mu demee Qatar ba léegi atum 2016 euh, coom day faral di ñëw rawatina ñuy rumalaat ni kon am na lu dox ci digganteem ak président Macky Sall nañ ko bàyyee ba mu dem ak it booba léegi li ci am ba Qatar seen ministre des affaires étrangères kon lim fi jot a ci euh, fan yi que dafa ni daal euh, kon. ak réewu Sénégal président voilà euh, bëggoon na daal waxtaan ak ñoom ci loo xam ni dina jëm ci mbirum Karim Wade kon euh, waxtaan googu ñuy wax que ni am na euh, te kenn yëgu ko de desuwaat rek ci mbirum Karim Wade ak diggante nga xam ne également moo lalu ci diggante Sénégal ak réew boobu di Qatar. merci beaucoup Mame Birame Diouf pour xibaar yi ñu indil tey ci suba si ak revue des titres yi xam naa ni ci kanam dinañ ko gën a yaatal ak Mamadou Mouhamed Ndiaye ñu bàyyi la nga dem ndekki ji. voilà merci lu muy ndekkee cere wala cere cere. maa ngi ñëw ci cere ji léegi cere ak ndox xaar ma. bu dee cere bu original yow xaar ma nii bul demal